waaw soles ndaje bi li ko wëndo mooy journée de la femme comme ni ñu ko waxee rek ndax ku ne xam na ni mois de mars mooy le mois de la femme te ñun chaque 8 mars dañ daan organiser 8 mars te comme ak contexte Covid bi nga xam moom la ñuy dund lëmbe àddina bi yëpp lëmbe Sénégal moo waral tey ñu randal suñu journée de la femme muy le 8 mars indi ko tey le 22. waaw tey ji nag li tax ñu koy magnifier tey loo xam ne dañ koy def chaque année la mu jig lool. tey ku ne jigéen xam ne jigéen ñi yëpp ay jàmbaar lañu surtout jigéenu réseau des femmes de jëppal Dieuppeul Derklé ndax jigéen ñu am pas-pas lañu jigéen ñu mën a liggéey nangoo liggéey takk seen digg waa dem ak seen doole nag ndax lépp lu ñuy def nii si suñu ñaq lay génne vraiment ma leen di rendre hommage si journée bii di leen rendre hommage à toutes les brave dames di réseau des femmes de la commune de Dieuppeul Derklé maa ngi leen rendre un vibrant hommage di leen remercier si seen pas-pas seen liggéey ak seen fulla ak seen fayda ak seen détermination ma leen a encouragé lu bare bare tey suñu journée bi nag c'est une journée très spéciale spéciale ci ban côté spéciale parce que tey action sociale lañ jóge lépp loo xam luy sociale moo ñu tax a jóg sociale bi nag ñu ngi ko jëmale si suñu école yi nga xam ne suñu doom yi ñoo fay jànge ah ci toilette yi nga xam ne ku ne xam na toilette école yi ni ñu mel ñu ne nañu produire 500 litres eau javel jigéen jàmbaar yi macha allah produire ko ñu ne nañ ko def ay kees boole ko ko ay masque jàppale sunu njaboot yi ci biir école bi ah yàlla gën leen sàmm aar ci feebar bi nga xam moo lëmbee àddina beeg yëpp. Ah ñu jëm ci moulin à mil moulin à mil li ko waral mooy ñun dañuy def ay formation te formation yi jot a def dafa bëri céréales locale da cee bokk ah leadership partagé tam bokk na ci ah fruits et légumes transformation fruits et légumes bokk na ci. liggéey boobu ñuy liggéey nag chaque fois di si biir centre bi yàlla def chaque fois nag commune Dieuppeul Derklé yëpp di ñu gis monsieur le maire bi nga xam ne mooy Cheikh Gueye diñ ci accompagner chaque fois ndax c' est grâce à lui tey bu mu lay ñëwee ndax gis jàmbaari jigéen yi nga xam ni chaque fois day ñoo ci centre bi di rendre visite di leen xool ak seeni coon ak seen pas-pas ak ni ñu yëkkatee bagage di yóbbu ba marché Castor mu ni ñi kat war naa leen mën a jàppale jàppale ci kaw lan mooy indil ñu ñaari machine walukaay xam naa moom du yem foofu ndax moom fi mu ne li mu bëgg mooy ñun ñu génn percé ñëpp gis ñu au niveau international ñu xam ci li ñuy liggéey ndax tey jii réseau des femmes c'est un GIE dëgg la mais dañoo taxawalaat beneen association ci biir réseau des femmes bu tudd association des femmes pour le développement et la solidarité lépp ci dugal suñu loxo ci lépp loo xam ne rek lu jigéen di yëngu la dugal suñu loxo ci suñu njaboot. njabootu jigéen yi nga xam ñoom la ñu njaboote di ci gis mère de famille yoo xam ne macha allah dinañ dem ba dootuñu mën a jàppale seen njaboot ci njàng ñu ne ñu réseau des femmes nañu jug taxaw taxawaay bu rafet ci côté boobu dinañ gis aussi ay xale yu jigéen yoo xam ne ay mariage précoce la ñu am ñu jàppale la ñu def formation former leen wan leen yoon bi ñu liggéey di nga gis aussi ay xale yu jigéen yoo xam en déperdition scolaire lañ nekk dem nañ ba jàngatuñu xëy na jàng nañu mën mënoon nañ jàng dem ba benn niveau yam fa mënatuñu dem ñu ni nañu lëkkaloo ci école yi nga xam ni mooy école de formation yi nekk dans la commune wala yi nekk aussi en dehors de la commune dem waxtaan ak ñoom xool nu ñuy wàññile ñu mën di dimbali xale yooyu jàppale leen wan leen yoon bi ñu dem vers xam nga réseau de femme yaakaar bu rëy la ci commune bi mais au-delà même de la commune da ngeen am tur ñu leen di wax ak di leen dégg feneen fu dul fii ci seen taxawaay mais surtout ci seen xarañte ba moo tax ma leen di woo di leen soññiwaat jàppoo bu ngeen jàppoo na ngeen ko gën a dëgëral doon leen benn bokk ndey bokk baay di yëkkatandoo di dóorandoo lépp lu ci nit xamul na laaj moroomam lii lan la ñu explique mais bu kenn génn fee di wax leneen wala di di poser ay questions fii ndajale d'abord c'est une famille et li ma gis ngeen koy doxalee que muy jamonoy koor que muy jamonoy euh, tamxarit vraiment neex na ci xool lu ngeen def da ngeen koy àndandoo def ko bokk ndey bokk baay loolu mooy développement jigéen bala nga naan développement dangeen di bokk yéene da ngeen di bokk gis-gis mais loolu yëpp bu amee mën a nekk véritablement c'est parce que commune bi dañoo am aussi adjointe au maire nga xam ni soxla jigéen ñi def na ko soxla boppam képp ko ci wow mu ñëw taxawul moom aussi ku jara sargal tout ce qui touche à la femme l'intéresse et la touche véritablement c'est une femme de valeur c'est une femme qui a beaucoup de valeur sax ku am yéene bu rafet la léeg-léeg sax daf may soññ naan ma monsieur le maire nu ñu def lii monsieur le maire donc mooy wane ni yéene bi mu am ci yéen yéene bu rëy la mbébét bi yàlla na ko suñu borom àggale aussi vraiment tey bisu sargal jigéen la ba mu fa doon lim dama fi jóge kenn ku nekk ci yéen mën nañu wax xar baax ak njàmbarte bi ci moom ak yéene bu rafet bi nekk ci moom mais bu ñuy célébrer la journée de la femme mais journée d'évaluation la journée de bilan la jigéen ñi fi nekkoon démb ak bërki démb jigéen ñi doon xeex démb ak bërki démb ngir yàq ak yelleefu jigéen xam nga jamono bii ñu génn dégg ngeen kuréelu jigéen ñi nañu takkoo taxawu pour laaj seen ay droit ci ay euh, mbir yu bari ndax jigéen dañ ko néewal ci suñu réew jigéen joxuñu ko gëddam ci suñu réew barki dem rek am na ay jigéen yu may waxtaanal ñu dem ba ci biir waxtaan wi ñu ni ma cheikh ma ne leen waaw ñu ne ma wóor na ma ni alxuraan ko bind góor la du jigéen ma ne leen lu tax mu ne ma avantage et privilège yu ñu jox góor yëpp te jigéen dara ma ne ah pourtant alxuraan day jox na jox na aussi gëdd jigéen ñu ne man lu tax góor di am ñeenti jabar jigéen moom benn jëkkër xandu nit rek ma leen foofu nag mbirum suñu borom la effectivement égalité moom day yóbbu ba yóbbu yenn questions yi mais c'est des questions yoo xam ni war nañ ci réfléchir ba ma leen di wax loolu ñu ne ma mais waxuma ñeenti jabar boo demee ci dëkk arab yi nga xam ni fa la l'islam gën a kilo mais doo raar na nga gis naar bu am ñaar wala ñetti jabar fii ci Afrique rek ñoom ñooy def seen interprétation et cetera manu ko mais benn jabar ñaari jabar ba ci ñeent am na solo amul solo la xam nga li am solo mooy la leen boole te muy dëggu dogu jàppalante te yàlla rek tax loolu mu am solo que muy benn beeg ñaar bi loolu yëpp amul solo la ngeen di def ngeen di ko defandoo ngeen bokk yéene ngeen yéenante jàmm donc maa ngi interpellé ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir sëy bu jamono metti metti metti metti ba ngeen wàccu seen démb ak seen borom kër bu jamono méttee foofu ngay xamee gor mu taxaw mu defal jëkkëram mu delloo si xelam waxtaan ci jàmm ak salaam bu jàmm dellu si loolu mooy jàmm mais boo meree rek mais ni genn gu loolu du dëgëral sëy nit day def bu meree mu des a xel moo xam ca kër ga la moo xam ca liggéeyukaay ba la moo xam ca mbedd ma la moo xam ca réseau ba la boo meree xam sa bopp boo mënul am koy waxal nga rocceeku ndànk ba sa mer giif nga dellu siwaat nekkal nitu jàmm nekkal puso di nas di boole te bañ di tàqale donc véritablement honneur la tey jigéenu commune Dieuppeul Derklé à travers le réseau célébrer journée internationale de la femme di jiital ci nuyoo bi nag suñu maire bu baax bi nga xam ne muy euh, monsieur Cheikh Gueye nga xam ne ni ko madame la présidente waxee léegi taayul sonniwul ndax ba ñu jëkkee def euh, euh, journée de la femme moom mi moo taxaw jox ñu xaalis ñu dem jëndi yére booba temps neex na ndax dañ doon jënd yére dunduroole nuróole mu ne ñu wax leen lu ngeen bëgg ñu jox ko suñu liste macha allah mu jox ñu ñu dem ñoom femme ñu dem jëndi defar ba mu baax boobu ba tey teggiwul loxoom lépp lu jëm ci femme man mii may kii waaye man dafay wax ak man ni ma madame le maire lu femmes yi wax rek man moom laa wax waxal ak ñoom ñu nekk nag ak ay femmes yoo xam ne monsieur le maire femmes yu am fula lañu femmes yu nga xam ne yi elles sont respectueuses gis nga leen li ñu toog nga xam ne liñ naan autonomisation de la femme defe naa ne bu ñu ko dee wax fii ci jëppal Derklé ci ñun ñi ci ñoom ñi la baaxe ndax ba ñu commencé di def affaire euh, consommé local def seen ay sunguf def seen farine booba bu njëkk la ñu di ko def fii di ko jaay balaa muy pare sax nit ñëw jënd ko lu ñu leen wax formation yu bari la ñu def fi mu ne toog donc bu ñuy wax autonomisation je pense que fii la fekk baax ma leen ci jërëjëf di leen remercier présidente Fama sa taxawaay rafet na ndax euh, lii dañ laa woolu femme yi ñoo la wóolu jox la jox la ko teg ko te yow wax dëgg yàlla tu as été à la hauteur def nga ko ba mu mat def nga lu xale femme yi bëgg yaa ca yaa ngay daw ay financement yaa ngi ñëw ci man yaa ngi dem ci monsieur le maire yaa ngi dem fu nekk yaa ngi dem ci Fodem Fodem mais maa ngi profité occasion bi aussi du nuyu suñu partenaires yi nga xam ne tey jii aussi dañu jàppale. parce que d'accord monsieur le maire moo nekk ci buntu ba waaye ku wax ay Fodem ku wax Rabek ñooy ñëpp Fama ñoom ñëpp dañu jàppale ci formation bi ba ngeen egsi ba fii. donc vraiment ñoom tam amuñu seen fay. sama wax nag du ci bari ndax Fama wax na ko ba pare campé na sujet bi et monsieur le maire aussi wax ngeen ko ñun dañ koy ñaanal yàlla rek. li muy sumb ni yàlla na ko yàlla may kattan mu mu koy yeggali di ko yeggali ay yeneen ak yeneen ak ndax yéeneem ci ñun bari na macha allah monsieur le maire jërëjëf jëf di leen ñaax rek nag di leen encouragé wax di leen ne ñun ñu ngi ñu ngi ak yéen di nag profité ci occasion bi di leen wax ne leen bu leen fàttali mesures barrières yi nga xam ne yi quand moo tax c'est important pour ñun parce que bu fekkee ne yàlla def na dañu war a continuer suñu activité donc nañu def suñu activité yi ah dégg nga pensant à ça ndax dañoo am ay mag parce que jigéen ñooy dem ci marché yi jigéen ñi ñooy dem ci ndaje jigéen ñooy dem ci ngénte yi ñooy dem ci xew yi kon nag bu leen di fàtte à chaque instant ngeen di yore seen masque di yore seen gel di aussi sensibiliser nit ñi ndax dañu yore ay mag ci suñuy kër kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen encouragé waat di leen félicité bu yéen ñëpp di nuyu aussi au passage presse bi parce que presse c'est important presse moom mooy ñoo ñuy gunge ñun jigéen duñu fàtte presse de ñun nag ñu ngi seen seen gannaaw rek ku leen jàppale leen ku leen jàppalewul jàppal nañ donc merci beaucoup à tout le monde et puis bonne aussi bala may tëj di def di leen euh, rappeler li Fama wax léegi ci kiosque bi parce que kiosque bi lu ñu sexal la monsieur le maire jël kiosque ba pare waxuma la kiosque mais jël endroit boo xam ne daf ñu ko may ni leen am leen daf ñu ko jox leen liggéey leen mais ñun nag suñu jaan wàcc na donc ñun ñun ñoo ko war a prouver aussi ni ko ñun kat monsieur le maire lii nga ñu def kii nañ ko moom tamit mu boole ñoo partenaires yi parce que bu leen fàtte ne nee naan ici na au niveau de notre euh, communal bi ñu nekk am na fi ñoo xam ne ñu mel ni ay Auchan mën nañu liggéey ak ñoom waxtaan nañ ci ñu ak Fama kon nag suñu maire bu paree comme léegi am nañu kiosque bu ñu toog liggéey bu ñu liggéeyee suñu consommé local donc war nañoo am privilège au niveau donc de nos partenaires qui sont au sein de la commune ñu jéem leen a xool waxtaan ak ñoom ñu seet aussi nañ leen jàppale ñu écouler parce que une chose est de produire mais une autre est d'écouler soo see see kii pour ngeen am tuuti